léegi nag ñoo ngi fas yéenee dugg ci bunt bi nga xam ne sunu sëriñ Cheikh Sidi Ahmed moom la ko sëriñ bi jagleel na yàlla dottil say xanat tijaani ak ay ñoñom saha iba ridwaani ba mbir ya tiisee ba ku nekk naagu te waaja doo gis ku ne dégg naa ko lëndëm nga tar ñépp gëlëm ñuy xaacoo kenn xamatuñ fu kenn di jëm ñuy xaajo xare bu tas la li fi des mooy rawale sa bopp ndem sax danga raw tey yow meli ña am ña xel torox jëm ca yàlla tawat di yaakaar xett leen ak wall boobee la yàlla fenkal jantu njolloor jollin jant bi seex la boobee la yàlla fenkal jantu njolloor jollil leeram nga leeral bépp gox te xàllal xàllal mbindiif yi ngir mu leer mu gàtt jëm ci moom nga seqi ñetti jéego egg lii meloon ka yàlla def njiit la te muy kay teg tele kan nam mu péeba faf di péeba wax ni la seexe wax mu ne maay wane yoon di yoon wa maay fa ñépp jëm maay naan ga maay kaas ba di nandale itam maay sangu gaaye jiitu woon tey seen ji ku mas jiitu sama tur wi may ko ji lax taabu ak laxwaasu ak mafaatixul ku nuusi ak afraadi malaken faatixi yàllaa ma fal may jëmm pay bi mag la dëkk duniyaa bii lu yàgg yàgg seex nee na pay boo fa gis bul génnee benn maa gannaaw ba yàlla ak yeneen ba maa ci kàttanu buur yàlla ak yeneen bi maay tëbb mboolem lu mu ci dund kon ku ba gis na gis nga mbóor yu rëy gis màngasin ba yàlla denc maye gis nga lu feeñ te nëbbi lépp yi la mu doon gis nga ku wéet te léppi mbooloo wéeroon nee na loo xool ba gis loo làmb daj ko seexa loo ma sa dégg mu dëpp taar meloom seex nee na lépp lu yéeme maa fa feeñ di kéemaan man feex maa di ka may taar jëmmi nit may insa man feex maa di ka feeñ di nit ni yéer ngir nëbbu man feex may waaja teew di leen jëriñ te fàddu bu kenn waxee bu kenn gisee lu waay man lépp ngi soqi ko ci man man feex maa daj kaw ak suuf maay biddiiwi asamaan maa àtte foofa ak li fii kulla samaan feex ne jant bi ak meloom kéemaani maanaam xool ma ci moom nga gis te leen ni man kan maay ndoxi taw yi maay la sax di gàncax maay nooxu kuy noy lu dul léet maay ka tax man feex maa àtte géej yi maa di feppi ndox yi tey feppi suuf yi léegi leen ni may yi seex nee na buur yàlla fal na ma te boobee aadama diggante ruula ak yaram li wóor na seex nee na ku may tëkkale kenn moo ma réere yàllaa ma bind may ku wéet te waare Seydi Abbas nee nag yàlla may ne dafa yaa loo ci xamul bul weddi waaj xam te am yàllaay xamal seex nee na doy na ci yàlla seede ak yeneen ba mooy kama wuutal xama wuutu góor la kon mbir ya leer nañ caxwat tekki bis bu sa kiiraay wëril ko nga seede ko seex nee na man maay ka xaatimi gisoon fil xaydi te mbir ya yéen ko dëkk faas fil xam bi da kenn te la mbuur abul xabbaasi na sant bëkk nara doon xabbaasi ku mas a wax ci gaañi fil xat mi yëti maay ka mu doon bi xëyri mir yëti feetal futuuxaatin li muxyi diini wala nga fet xanqaahu fi xiini biral na ci nëbb gu ànd ak feeñal ca ba mu nee fi lay leeral ndax sanaqun limum ba boo ko seetee daa gis te xam ni man mi fii lay ñiite junni la ak téeméer nga teg ca xam siin boobee ca la fenk diggantul xaarifiin fi mawlidil xatmi bi xëy ni maadi may tëbb képp ku fi teewal maadi maa njiitu njiit yeman baxlu xirfaani abul fuyoodi ahmadu tijjaani maa xam dakkentalu abul abbaasi maa taamu tànn dëkkanee bi faas mandarga yi bu ñu dajee ci kenn kookee ka ñuy wut mus la xam ci fenn yawaaxitul muallami sahraani seet ko te seet librisa li daymaani muhammadul yadaali góor gu siiw ga te mag ki yàlla moo réyal mayam ga wala nga seet taraaif ak talaa'idi lil xaaris al kunti sil fawaaidi laajal murid al xaaris rabbaani الصيف عبد القادر الجيلاني سلطان الأولياء بكل منتي في وقته لم قوخ في اليقظة yaa sayku waa ji ñëw abbi samxoon nit ñépp daw jëm ci sellu gi yéene kan la ci yéen mu wax ko yaa anisi kooke ndax njaamagaa kerama mi karwus kitaabu kasfin lil xijaabi seet ko sukkayri joo nett li lii te bind ko bis penc yàlla boole lépp luy mbindiif ci benn pàkk ngeen di gis samay manif yàlla tabax ci leer di ñeel ma min bara ma yéeg ca kenn fallahu amara kenn ku jóg yéene di wax xool leen kii moo doon ca duniyaakum bi xayri sakki kay tëggu ñépp kenn desul ci yéen ñii te kenn xamul boo moo di kan ci gànni su di abbas nee na bisub keroog daa gis ku réccu gis ku bëgg na yàlla def booba ci ñun ñii ñépp mbir amin seex nee na li gën a wóor nag lii lañuy wóor yeneen ba xayrul waraa di kaw may bii màtt ba ndax yonente moo ni seex yow anta wala di mu ni moo ma ni anta wala di ca dëgg amul ca gaaña ku di jot sa mbëgg yow seex yaay koy nëbb yaa di xatmul awliyaa yow seex yaa leen di jox ci samay leer anta liyaa seex nee la ca gannaaw lii ku ko am fabal jël man rek a moome ku dul seex du jël njël